amaan nañ mbégte ci toog ci jataay bii nga xam ne jataayub sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa xaala yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu yëkkatiwaat ndigal lu jëmaat ci mboolem yoonu murit wépp jaarale ko fam ko baaxoo jaarale mu di ki mu jox kàddoom mu di Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdul Xaadir ndigal loolu nag Cheikh Mahamadul Basir fas yéene yëkkati da ci ànd ak waa daayira muxadamatul xidma bi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ju mag ji ci sëriñ bu Buso jiite ko te ndigal loolu jaar ci jumaa yi ji jàll ci mbooleem yeneen jumaa yi ak jàkk yépp waaye ngir bañ a guddal dañuy bàyyee kàddu gi cheikh mahamadul bachir moom cheikh abdul xaadir mi nga xam ne moom la sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa jox kàddoom mu fas ko yéene yëkkati jëme ko ci mbooleem jullit yëpp ak taalibe yëpp ñu maa si déglu cheikh mahamadul bachir alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër Cheikhul Khadim di yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba tey ci kaw suuf ñu ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu ñëw fi ci ndigalam rek ginnaaw bu ma wóoloo wóolu waa daayiratu muqaddamatul xidma ci njiital Serigne Afi Boussa al imam bi ñu agsee itam Serigne bi yëkkati ay kàddu wax ndigal li nga xam ne bëgg na ko ci joxe na ko ci ndigal yi ci dëkk bi ci jàkka yi ñu war koo saytu war koo taxaw kon li nga xam ne santaane na ko ci ginnaaw bu mu ci joxee ndigal jottali leen ko sëriñ Afi Bousso dana ci ñëw ak ñu ko ci war a àggaleel ngir leeral leen ni nga xam ne la ko sëriñ bi santaane ñuy ñaanal nag bu baax sëriñ bi mu yàgg fii te ànd ak wér ndax li ma ko wax léegi rek li ëpp solo ci li nga xam ne suñ borom defal na ko mooy ku gis jëmmam rek mu delloo la ci yàlla suñ boroom ndax farlu ga ci jaamu yàlla ak jël léppam jox ko yàlla suñu boroom te bokkaaliwu ci dara waaye jël léppam itam jox ko Serigne Touba laxasaayu doonu taalibe ku mel noonu nag kon Serigne dafa fàggul ak njabootam ñi ngi xam ne ñoo ko fi nekkal ku fi agsi rek mate ku sëkk. Mhm. moom mii nag yàlla dafa def ku fi mos jaar rek mu laxasaayu euh, doonub taalibe ba laq sa ngërëm ba tey muy Serigne Touba bi mu doonee Serigne ba nag yéen itam ku ne xam na ne lépp loo xam ne mi ngi koy santaane génnut ndigali Serigne Touba muy kilifa gu bari yërmaane goo xam ne bu sañoon ñépp ne ci jàmm bu sañoon fitna du am fenn mm-hmm. moo tax itam loolu nga xam ne moom lay dund te di ko yëg ci diggam ak Sëriñ suñu borom faye ko ko ci biir xoli taalibe yi wa min saadatil fata xaysu xasat allaa yurdahu fu addu si rasat moo tax Cheikh Mahmoud Muntaxa waxuma taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga ku ci ne jàpp nga ne séddal la ci sa bopp loo xam ne mësu ko am ci kenn ku ci ne jàpp nga ne itam sédd na la ci boppam doon séddu ko kenn waaye ni mu ko defee ci taalibe Serigne Touba yi def ko ci bokk yi noonu la ko def ci mboolem jullit yi la Serigne Touba waxoon fépp fu ngeen gisee ab jullit rek na ko def muy seenum bokk Cheikh Modou Mountakha loolu lay kon nag ñu ngi ko ñaanal bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér mm-hmm. ndax yitteem jëpp wax naa ko ko léegi ñun ñii kenn ku ci ne. yaa ngi jéem a góorlu ci sellal sa digg ak Serigne mm-hmm. loo man ci sa digg sa borom nga di ko def waaye moom nag da caa sax te boolewu ci dara boolewu Serigne Touba dara amul benn bëgg-bëggu àdduna lenn loo xam ne man ngaa wax ne Cheikh Mouhoun Cheikh Mouhoun tax bëgg na ko ci àdduna xamu ko du kër du du du du oto du dara mm-hmm. léppam Serigne Touba la ko jox mm-hmm. kilifa gu mel noonu ko yàlla def war nga saa soo xëyee di xoolaat ci moom. te roy ci moom te xam ne lim lay digal mooy doon la gën ci yow te Serigne Touba kat bi mu sosee yoonu murit da koo tegal ay sart wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci lépp taalibe war a def mooy bu sëriñ bi diglee bul xool la gën a jub ci sam xel ndax boobaa topp gi ngay topp sëriñ bi it doo xamante lu muy jëriñ ndax sëriñ bàkk bu soo waxtu ne ma di ko fàttali moo ko mm-hmm. moom mii itam nag ndegam moo dox suñ digg ak Serigne lu mu ñu digal rek dañ ko war a def wa tarkul ictiraadi mutlaqan walaw bi waatin alay fi ma xadaw Serigne Touba nee na taalib bi balaa ak taalib mu wér du dingaan mukk ab sëriñam doonte waxuma dingaan ko dingaan ko ci bit waaye du ko dingaan ci biir te Cheikh Serigne bii kan rek ku ne xam na ne lenn loo xam ne ak matadi la wala lu ko nit war a mën a yàlla def ko ci moom mm-hmm. kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lu tànd ak wér Euh, dëppook aaya ba rek wa ma kaana li muminin wala muminatin isa qadallahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu mi amri loolu suñ borom santaanoon ci suñ digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mii nag fi mu toog tey moo doon Serigne Touba te Serigne Touba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñuy wax rek nañu xam ne wa maa yantiqu anil hawa ni ngeen ko xamee mooy euh, fii àdduna toll lii nga xam ne ak wéradi la te suñ borom wàcc ko ci kaw suuf te mu waxoon ca la Sëriñ Tuubaa waxoon ca euh, peste boo amee ci njëriñ mbindeefum yàlla suñ borom la wàcce waxtu ko suñ borom jeexale mu jóge waaye kon li ci suñ borom santaane ci àdduna ci lu war a sàmmonte loolu sëriñ bi mu ngi koy fàttali looloo waral sax ngir nag bëgge euh, gàttandu dogalu suñ boroom moo tax sëriñ bi di santaane lii nga xam ne mu ngi koy santaane mm-hmm. ci biir loolu itam nag ñu ngi ñaanal bu baax xew-xew bi nga xam ne amoon na fa nii ci jàkkee jooju ba ay jàppante am fa mm-hmm. ñu ngi masawu njaboot ga mm-hmm. ndax ñoom ñëpp taalibe Sëriñ Tuubaa dëkk bi ku fi ñëw ko ne dangaa gàddaay ngir yaakaar yërmande yàlla yaakaar xetliku Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku fi sam xel indiwu soo xel indi la fi kon nag ñi fi ñëw ñëpp loolu leen fi indi kon nag képp koo xam ne lu mel noonu dal na la fi te muy dugg suñu borom loola ñu ngi koy ñu ngi leen ci ñu ngi koy ànd ak ñoom tey eh, digal ñi nga xam ne itam ñoo yor loolu ñu gën a sàmmonteeg ak doomu aadama yi sàmmonteeg itam nii jëflanteeg nit ñi ndax eh, nit dudul bant suñ borom daa waxee ne wala xad karam naa bani aadama kon boo koy digal loo xam ne njariñam itam bokk na ci xikma ba nga fexe boo waxee ko noo xam ne dan la mën a dégg muy ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana ndax loolu rek ko koy indi kon li ci des ma bàyyi ak suñu affaire bu so mu sànni ci kàddu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil anbiya al wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit ñuy setaan ak ñu dégg ñëpp di siyaare ñëpp di jiital suñu nuyu ak suñu ziyaare ak suñu ndokkeel ak suñu wala aq cheikh Mouhamadou Muntaqa xafisahu llahu wara di ko ci loxo yi cheikh Mouhamadou Bachir yi ngir mu tegal ci loxoom di sant yàlla bu baax di yeesal sunu jaayante ak Cheikhul Xadim di ñaan sunu borom saxal nu ci ak taalibe ñu dundi ci faatu ci yow sax ci ndigal ba faw su bi dana woowoon nag ngir doon dolli ak cantam ak yeesalam ndigal ci taxawaay ci liggéey bii mu dénk mi jumaa ji muy rafetlu taxawaay nag di soññ itam nag ci ñu dolli taxawaay ni mu gën a mate nu fa sëriñ ko defee noonu yi nga xam noonu ko sëriñ bi sante di ñaan nag mbokki jullit yëpp mbokki taab yëpp ñu jàppaletu ci ba sëriñ bi ko noonu mu ko santaane mu santaane nag aw melokaan la woo xam ni Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi incha Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi incha allah ni nga xam ne moom lañ bëgg ñu defee ko noonu koo de ku ne ñu ñaan nga jàppale nu ci ban amee ko noonu ndax nun kat incha allah danañ ko jéem nu ko suñ bi sante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 fas nañu yéene lii mu ñu digal danañ ci euh, taxaw taxawaay bañ ci war a taxaw lépp luñ mën danañ ko ci def luñ mënut it danañ ko ci jéem ngir sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Bousso jërëjëf sëriñ Afiye Bousso waaye jërëjëf Cheikh Mouhamadul Basir mbokk yi kàddu yaa ngi noonu sëriñ Touba ñoo ko jox sunu bopp. waaye tënkuwun ko ci ak julli wala dem tool wala mu yóniñ ci marché ba sëriñ bi su mam ti saalu amrihee xay su warat mooy baatum ndigal fu la ko sëñ bi joxe rek nga war a defi kon nag sëriñ bi nee nañu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi dem ci jumaa yi moo xam jumaa ju mën a doon muy jumaa ju Tuubaa yi ak yeneen jàkka yi ak yeneen jumaa yi donte nekkoo Tuubaa sax donte jàkka ja nga nekk nekkul ci réew mi te dégg nga ndigalul sëñ Muntaxa da nga ko war a jëfe ndax ndigal kat dañu wax ne bu ëppee du ubbi waaye bu manqué du ubbi kon képp kuy ñëw ci jumaa ji na nga yoraale ab masque bu dee kilifa gu mënta yor ab masque te am kaala gu set moog masque bi ñoo benn ñoo yem mu kaalawu ak kaalam booy dugg ci jumaa ji na raxasu soo àggee na nga laal sel sàppe yi diggante sàppe su ne ak morom ba nit xaj na fa loolu wax nañ palaasum nit kooku nañ ko dindi ñu soree lu mat mètre bu jumaa ji feesee ëtt bi fees kenn ku ci nekk xam ne nag am nga yoolu yoolub julli ji ndax amoon nga yéene ba dañoo ci jumaa ji nga delluwaat ci jeneen jàkka ju la war a gën a jege wala sa kër nga mën faa jullee ndigal loolu daal moo bàyyi ko ci munta Muntaxa jaar ci Cheikh Mahmadul Basir ñëw ci xidmatu daayira Muxaddamatul Xidma àgg ci mboolem taalibi yëpp ñoo ngi santaat baax di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Bye.